jërëjëfe sëñ Touba est-ce que borom Touba borom Touba amut morom jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall barke borom gaawaan barke Cheikh Sidi Muxtaar mbokk jullit yëpp mbokki taalibe noo ngi di nuyu noo ngi di ziara ci émission Café Touba jot di ñaan sunu boroom dollinu kàttan may nu xéewal ak xel mu nu seexul Cheikhul Xadim sunu bëgg ci sëñ tubaa ñoo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne lu ko neex la yokk yàlla na ko yokk noo ngi ñaan bu baax sunu boroom dolli ci réew mi jàmm dolli ko ci bitim réew ak fu jullit ne jaar sëñ Touba Cheikh Sidil Muxtaar te koy ñaanal mu yàgg fi lool ndax ndamam mooy ndamu lislaam mooy yoonu murit waaye mooy képp koo xam ni bokk nga ci axlu mbàkke ndamul seex sidi muxtaar mooy sa ndam te mbàkke lu xew rek mu am ci ndamam kon noo ngi koy siyaar te di ko ñaanal baax a di siyaar bu wér sëñ maam mor faati di xalifa maam seex anta waaye noo ngi siyaar baax sëñ basiru mbàkke moom sëñ abdul xaadir ci taxawaayam mbaax geeg dal gi ak bëggam sëñ Tuubaa noo ngi koy ñaanal baax a baax noo ngi siyaar baax sëñ basiru mbakke moom Cheikh Mouhamadul Amin nekk fii ci Touba Canada Géejawaay di ko ñaanal mboole nuyoo waa kër sëñ Baar yépp mbakke teg nañ ko sa loxo nag ñu ko séddaleel di sunu lépp di siyaar sëñ Abdou Aziz Abo baax a baax waaye noo ngi siyaar baax murid ci dakar yu sen ciar tek nañ ko ci loxo jiwriñ ahmadul mbàkki fay tay ñaan suñu borom yagal ko fi lool nuyo cameraman yi teg ko loxo sëñ Abdou Khadir bu baax baax mu seddelel mako ñu fi ne personnel Touba TV nak tek nañ ko ci loxol sëñ Cheikh Balla sambu mbollem redaction bi yep ñong leen di nuyu waye ma ziaré Jibril Ndaw mu melni di ngeen jot ci ziar bi sëñ Mbàkke mbout ñom ñep mbollem animateur yi sen ziar teg naa ko ci loxo tay Cheikh Anta Samb Cheikh Anta na ko seddelel mbollem animateur yi tay teguma ko ci loxo seigne Am Diop Cheikh Anta Samb laa ko tek ci loxo joxal mako ñun seigne sëñ ci ba nak ñep rek di ziar wa Touba bu baakha baax tay émission bi mi ngi jëmaat sax ci may Touba nan lan war a dekk ba akit fuñ ko wara tek ndax Touba euh, du manam suuf moo dem ba ñàkk war ma déedéet su sa moom la ca boroom waxoon rek saa su ne day yokk yàlla wàcc al bihi daariya kalmadina barakatan wa kaabatan masxuna kon dëkk boobu bu nu xamoon la ca ne warunoo topp rek tabax ya warunoo topp rek oto ya fay daw warunoo topp ya rek tali ya ak zaayir si déedéet ña tëdd dëkk boo xam ni ku toll ni sëñ Maxtaar Bintaloo fa la tëdd ku toll ni sëriñ ma jëmb Silla fa la tëdd ku toll ni Seex Daaru Asan Njaay tëdd fa njabootu sëñ Tuubaa gu jigéen gi rek baatu rek bi sax maa ngi koy jéggalu njabootam ga soxna may ni am caatam buñ demoon ba dañ ne dañ koo dencoon sax fu ñuy wax ndakaaru wala feneen sax barab ba war nañ koo wormaal rawatina moom muy wormay kese nga xam ne ci buntu booy dugg ci barab yi rek nga gis ñu teg ko fa nga xam ni ci diggante Cheikh Ibra Fall ak Serigne Touba fa ne mën naa ne diggante sëñ Daaru Asan ak sëñ Touba fa ne ak mag ña fa ne dëkk boobu am na worma yu ñu ko war a jox. warma yi bokk na ci bi ñu njëkk wax mooy tuubaa ku ne xam na ni sëñ Touba moom tooñul kenn daa dem ba ci dëkk boo xam ni àll boo xam ni wax na ni bi mu koy sanc lenn na fa nekkoon wéttalam gaynde yi ak rab yu ñàng yi ndax rab yu ñàngul yi sax mënuñu dëkk gaynde te Touba bari waa na kuy wax taarixu dëkk bi di wax historique bi di nga tudd gaynde yàgg na ci àll Touba boobu Cheikh Ibra Fall daan wax naan ñetti dënn yi yàgg nañ ci àllu Touba bi lool beneen ñetteelu leen dënnu sëñ Bàmba bi muy jàng alxuraan ñu dégg muy riir sama dënn bi di riir ndax zikru laa may gor garab yi ak dënnu gaynde gi léeg-léeg mu sab nu dégg ko dëkk la boo xam ni Cheikh Ibra ko gor dégg naa daan na fekk gaynde muy nelaw dalay dalay dalay naan la adom ah, jugal nuy liggéeyal sëñ Bàmba ngay nelaw nga jóg yeggay ne nak Cheikh Ibra Fall rek ko sañ lolou nañ ko xam baaxa baax muy dëkk boo xam ni wax nañ ni bi mu koy sanc li ko jiitu mooy daaru salaam la sanc mu jógee xuru mbàkke daaru salaam la sanc si sanc daru salam ba yàgg mu ñëw sanc daaru marnaan yàlla xamal ko ni ko dëkk bi ngay seet te mu yitteel mi ngi ci kanam bi mu bandam, ba ndaam sunu borom xamal ko ni ko fofu ab dal la mu daldi dal mu daldi dal fofu wax nan ni ci la tok ba yag dugg ci bir gott bobu all bu lëndëm bobu mu forêt verse all bo xamni ni rap yi gëna danger fa lañ ne motax kenn amul woon fitu dugg ci all touba boobu mu daldi rir mag ni nak nek ci touba rek nek ci Touba xana xamoo feñu Touba moo maaseeg gan ak jamonoog Serigne Ganek danaka gan ak jamono Serigne fallu ndax dafa ne serigne dam duggal ma xalwa serigne dam abdourahman Lo bim duggé xalwa genn dané ko gis na jant bu fenk ci sa beccëk xam nga ni beccëk fekkon nako mo am mat jant waye bu ko nee gis na jant bu fenk ci sa beccëk ci lako ko bi xamal ko ne ko ndax yalla mu niital noonu li ñuy ay fan la ca tek gis pak Touba dana ni fofu nga xamni ni fi lan ne fi lan ko denc jumaa tuba fi mu nek tay mo nekkon keuruk seigne tuba kon yan war lañ ko wara jox jumaa ji fi fi fi nga xamni dañ nan moy barabu ko tedd gi am mom sax du koy faatu wa du koy faatu bind kafani al bahi al mamata sarmada wa bi baqa'i yasuri ahmada yàllaa ma fegal faatu du ma faatu des gi ma fi des nag dama fi des di liggéey rasulullahi sallallahu waxaat ne anaaw jaahirulaha bahda haza layli arba mi arta bi dax fi wajal bi sëñ Tuubaa ko wax danaa dëkk jéeg yàlla ginnaaw guddi tey ñeenti téeméeri at maa ngi ci seen biir njariñ fu mu nekkati maa ko xëcc mu ñëw lor fu mu nekk fu mu jógee fu ku ko gisul xamal ni maa ko jañ mu dem moo tax képp ko am jàmm ci réew mi ak ku mën a doon santal sëriñ Touba moo la may jàmm ak ku mu doon la ndax moom moo wax yii bayit wax na ne fi sooroor bi nekk Cheikh Ibra Fall moo fa daan taal ay banti jalambaan mu xaw koo sori ngir lan booba amul courant amul dara jëneer bi jëm kaw bu jëneer bi jëmee kaw sëñ bi di mën a gis li muy bind guddi gi addina ci naafilaam ak di nekk ci ay lawraatam ak ay jaamu yàllaam ba set fis fi ñu denc seex Moustapha al Karim ak sëñ Mbàkke Madina ak seex Muudu Moustapha nga xam ne ñoo bokk barab boobu waaye waaye barab boobu nan la ko nit mën a rombe di def naka sudut noonu mbaa nga koy wax ca dëkk boobu foofu moo nekkoon néegu soxna Aminata Lo boo wàccee escalier yi barab bi lay féete sa càmmoñ moy barabu cheikh Mouhamadou Fadal Serigne Fallou barab bobu nan la ko nit meuna rombe ñu ufal ko ñaari jambaram ya cheikh Moustapha fallilu ak cheikh mohammed Amin mi nga xamni mo ñëk njëkk a dégg sëtub sëñ Touba don khalifa sëtub serigne Touba bu don khalifa ci mom lañ ko ñëk a dégg ab cër la bu ko yàlla jox bo xolé ci sa kanam cheikh Abdul khadir Mbàkke ñu ufal ko cheikh Moodu Abdou khadir sëriñ Cheikh mi xalifaam yàlla na fi yàgg téwér nan nga mën a rombe foofu Cheikh Mourtada Mbàkke ne ci sa kanam sëriñ Saaliyu Mbàkke nga génn boo génnee jumaa ji ab tali nga yem tali tali boobu wax nan ni sëriñ Saaliyu Mbàkke man li may wax ku ko jege moom a ko wax nee na boo ma saana duggandoog moom oto mu jóge ci tool yi moom sëñ Saaliyu nga xam ne daanaka foofu la daan jaar nee nañ bu accès ba foofu biir oto bi lay toog sax waaye day summi dàll yi ci biir oto bi diggante boobu nga xam diggante armeel yi ak jumaay Tuubaa nga xam ni léegi sax baare nañ ko ba mayatuñu oto bu fa aw loolu yow yow mi dem Tuubaa sax loo loo doon doon jayil jàngoo xamoo boo xoolee ne ñeenti côté yépp mën nga koo wër waaye boo agsee ba daaree kaamil doo jàll ak oto nga war a xam ni fii amna lu fi ne amna lu fi sunu borom def kon amna warma war ma yoo ko war jox yow legi nga xol bir ndig néggandiku ya bar bi nga xamni Cheikh Sidi Muxtaar tëj na ko ubbiwaat yee armeel sëñ ne ci buntu bi seigne Abdoulaye borom deur bi jakar lol seigne bara ko njabotam seigne Balla cioro top ci seigne Abdou Mbarak ñom seigne Cheikh sëñ mbay mbàkke jaaxal mag ña diggante boobu nan la fa nit di defe nan la nit di xalaat li tëdd foofu ba noppi di fa def leneen lu dul war may tuuba moo tax jumaa ji ak kum ci doon li ko wër lépp barke cheikh ahmadou bamba sol ko dàll sax dafa araam wax na ne am na menn mag mu mësa ñëw sëñ ne ko lu nit di bëgg fii mënu ko am sol dàll yi mi sol dàll ci li wër jumaa ji rek moo ko may moo ko xaj to diggante boobu dafa am luñ fa bëgg am luñ fay bañ bàyyi am satuloo wax naa la ko ba tàyyi nee na bu mësaan di dem di ànd ak way juróom di màggali mag ñi dañ daan wormaal Tuuba nee na way juróom danaan ko yoral ñaari gafaka bii fas yu ci lay lekk bii bu fas yu tuuree ndox mbaa mu dem àll nañ ko on an def ko ci gafaka gi nee bu nu siyaaree ba war a ñibbi ngoon gi booba màggal gi bu nu añee ba noppi rek yor-yor bi la lañ ko daan yemale ci jamono jamonoy Sëñ Fàllu daal di ñibbi nee na bu ñuy dem njàmbur damay dox di dox ba mu ne ma boo sam nee na way juróom danaan ko boo séenatu jumaa ji rek sottil sottil sotti loolu maam nga xam da génn lii Tuuba xoolal mag ngi niñ defee noonu wor ma am na ci mag moo xamante ne daa ñëw ci sëñ euh, abdulaat sëñ Abdoulaat woolu ko waye muñ nako muñ mënutu ko muñ da wax ak señ abdoulat ne ko mbacké man de suma sañon sax xam li nga may doyee ndax soxla na sama bop ndax doom aadama la waye dana ko Touba duma fi dem aajo señ abdoulat da nako ko ne ko ginnaaw war maale nga nii dëkkub señ Touba bi tuba. la soxla soxlaatee man may ñew léegi nak Touba xol ubbi nañ ko kat ko yépp bo démé sam Touba da ngay dox ba yag sax ak ab ñak ñak ñak lu muy def Touba daje koo xam ne leer na la ni gëmul sëñ tuba hamu ko jéemu koo xam ba noppi problème yu am nyom ñu ko fa indi mag ñi bañ fay nekk warmaaloon nan tuba warmaa yoo xam parce que léeg-léeg nga dégg fa ay xeeti crime wala nga dégg fa ñu ne jàpp nañ fa nit mu doon def nangam mais loolu taalibe bu gëm sëñ tuba do ko ci jàpp nañ seet ni ñuy na ñan la waroon nañ kuñ jàpp tuba li jënti fan nga bok loolu dafa war parce que original original Touba maanaam originaire bi pur déretu suñ Touba yu daw ci yaramam parce que déretu suñ bul foog ne yow mi sant Mbàkke kese la képp ku bëgg Sëriñ Touba da ngay dem ba Sëriñ Touba chronique ci sa bopp loolu boo ko seetloo ci ki jóge ci baar bi sàngaraay chronique ci yaramam dem ba bu naanatu sax day màndi yow nga dem ba chronique ci Sëriñ Touba te Sëriñ Touba ëpp doole loolu sàngara kon da ngay mujj direct Sëriñ Touba mooy manifester ci sa yaram mooy circuler sa xol bi sëriñ Touba koy mujj moom moteur bi nga xamante ne bu doxul dara du dox sëñ Touba moo koy moom moo tax war na noo xool sécurité ba léeg-léeg ngay toom yàgg gis am mbàkke mbàkke boo xamante ne ni tey soxna Baali moom sëñ Muntaxa wax nañ ni tëj na këram dem Touba dem dem Poroxaan ñu ginnaawu ko sàcc sàcc sàcc ay ay ay takkaayam kon kooku xam na ni soxna Baali day dem Poroxaan léegi nag yooyu dafa am luñ ci war a luñ ci war a jàngate dëkk bu toll noonu waroo faa ne sax sa xol bi di am ku muy bañ waroo fa nekk sax xol bi di am ku muy fexeel nit bu fa amee cër da koy jox cër sëñ Abdou sama tam sëñ sony bu suñu borom jox na ko cër muy sëtu sëñ Touba jox ko cër bi Seex Basiiru Mbàkkeem sëñ Abdou Xaadir boore boore garaat yi ko sëñ Touba takkal sëñ Touba ne ko yaay samay tànk yaay samay loxo yaay sama beut yaay sama lepp fa koko donc ko koy delo ndax seigne bay jaxate mo wax ni nit bo beugé ci remit du tax nga am ko da ngay sonn ñaaw ci xare bi te du tax nga am ko seigne bay jaxate mo wax lii pexem yalla mo gën pexem nit ndaxam fa fexé fexe kat yeggu fa fa yalla fexé raw na bët raw na xel fa muy yokke awlaram ay bañam xandu fa mu yoké aw laram ay bañam xandu fa bu yalla yi fexel aw laram yi wuré di duy soode da koy def ñu xey gis ko fa lu way rëy rëyub cër du yobale kat cërub nit cërub nit ku bëggit ba fa do dëkk bob yan war ma lañ ko wara jox doomi sëñ touba yi sax ndaysan xolal touba ay jamono daaru xuddoo sa fa ne sëñ tubaa sëñ sëñ sëñ tubaa mënoon na ni sëñ fàllu sancal ci wet gi wala mu ne sëñ sëñ laat sancal ci wet gi wala keneen sancal ci bërëb sàngam maam doo ñu ko jiitu sëñ basiiru ak ñooñu waaye kenn ku ci nekk war maal nga dëkk bi ba dem sancaat sa beneen dëkk ngir lan Cheikh Ibra Fall dañ ko daan wax naan ko lu tax amoo Touba kër dégg naa mag ñi mës nañ ko ko wax mu ne ah Touba a dëkk boo xam ne boo taqee fa ngay sete boo fa taxee fooy sete moo tax am na ñoo xamante ne war nañoo xoolaat seen bopp ba xam ñoom war nañoo dëkk Touba war a waruñoo dëkk Touba parce que Touba kan moo fa war a dëkk man barke sëñ Touba billaahi wallaahi wa taalaahi saa yu ma fay dem ajjuma ci mujj àjjuma bi passé fa laa jullee bi sëñ bi joxe ndigal li man maa ngi toog wóor na sëñ Touba ci sàppe yi ànd ak ay kilifa muy sëñ Muudu Fall Modou Modou sëñ Modou jóob ñoo ngi koy ziar bu baax a baax ci tubaab Parcelles ñoom Abdou Fall ñoom ñëpp nga xam ni bi ñu joxe ndigal li ñun noo ngi toog saa yu ma duggee ci dëkk boobu li ma bëgg a wax mooy damay am lu ma yëg barke sëñ Touba Touba murit yu njëkk yi danga nga fa daan joggi nit sax moom mi nga joggi moo naan la baal naa la moo tax dëkk boobu ah, seigne Abdou togon dal ne limay téré fi ci Touba seigne Touba ko téré lo seeni bakkan la ci tek yeen sama bakkan la ci tek sama bakkan seigne Saliou Mbacke dal di ñew mom ne man de seen bakkan la ci tek seeni bakkan xam nga lutax tax doomi sëñ Touba ku xool yërmande ja mu dem bay tud loolu xam na ni kon dëkk bi amna lu mu ko jaral te dëkk bo xamantene seigne Touba yalla da ko ko nattu dané ko li nga gëna bëgg ci kaw suuf xam ko moy dëkk bi di Touba waye dama la koy bi mu jógee ci géej gi ba war a dem Daaru Salaam ba mu jaaree ay sànnu si kër sëñ Maxtaar Mareema jaar ay kàdd bàllu yooyu ba mu ñëwee ba kàdd bàllu ji suñu boroom da koo xamal ne ko dëkk bi ci sa kanam mooy Touba sa bët bu ci tegee rek loo liggéeyoon danaa ko dindi nga xam ne wax nañ ne ku tedd ki dafa jël kaala gi takk bët yi ba romb dëkk bi ndax yàllaa ko xamal ne ko dëkk bi moom sa bët dootu ci tege dama la koy xañ ndax doomu aadama lu mu gën a bëgg nañ ko ko nattoo waaw lol la wax motax wax nan ni ci njaaree magni buñ bëggaan bëggloo ko buñ ko mësaane bëgg bégloo dañuy tok ba yag dal ne euh buñu gisee mu ne ci àll léeg-léeg danaan day noppi du wax ak kenn djublu boromam waye buñ bëgge mu muñ muñum woowu nga xamni fu mësa muñ djublu rek <laughs> ñoñay ñëk tawlu ñoñay ñëk a ñoñay upp xewal Serigne Touba waaw bokku ci mom da ngay gis ñu yor ab sàkket wala ñu yor dara jàppoo ko naan bu ñëwee ba ci wetam naan melal lu jëm tuuba turu Touba yi rek bu ko déggee daal di jël kaala gi taf ci génnañ bi muuñ xol bi sedd turu tuuba Touba mosu koo foyee yow nag doo dara doo lenn tekki woo dara dëkk baa neex nga ñëw ak lu la poyetub àdduna njatt njatt ak lu la pouvoiru àdduna njatt njatt mais dëkk bi moom du sa morom dëkk bi du sa moroom te yow dëkk bi mën nga ko xoola mën na laa ñàkk mais yow mënoo koo ñàkk dégg naa toog na ba yàgg daal ne sëñ Abdou Karim Touré sëñ Mohamed Dem mu ne ko na xam ne kenn tëwu ma koo dégg feneen rek man la neex kenn tëwu ko sëriñ tubaa loo dégg ci réew mi moom la neex moo tax lu xew rek sëñ Touba moom la neex tubaa nag lislaam lañ ko sañce lislaam moo ko fondement moo ko yëkkati

ki nga xam ne mooy sëñ Mortala Fall mu Masalikul Jinaan di jàmbaari sëñ Touba noo ngi koy ziar bu baax a baax ñoom sëñ Noxo ñoo ngi koy ziar bu baax a baax ak jàmbaare fa nekk yépp ak soxna euh, Ngone ñoo ngi koy ziar Ngone Sarr bu baax a baax ak ka nga xamante ne euh, mooy euh, sëñ Manda Gàkku sëñ Moustapha Kan ñoom ñëpp di leen ziar may ziar soxna Asu Jenn bu baax Touba aéroport. di ziar soxna yaasin ñoom ñaa ñoom ñooñu nga xam ni waa aéroport yëpp seen nuyoo sama sa sa sa seen loxo laa ko teg nag woon ko séddaleel ziar way juróom ndeysaan bëggee woon lool émission bi daan ko bëggee muy soxna ab sa gay euh, yàlla na ko sëñ Touba teeru te teral ko te mu te tey lay xam nag kan muy sëñ Touba sëñ Touba moom boo ko rek bala nga koo xam fii kenn du ko fi xam fii la parparloo am fii la kii laa àndal am fii la kii moo ñor am kee moo ma neex affaire yi mel parti politique fii la am waaye bir bammel mom menn riir fa am bamba bamba bamba rek may ziar bax wa comité libu yëpp ñom jaraf saltige jambari wa wa wa ngor wa wa wa wa wa wokkaam tank ñi ñu wa tank wa yof ñom ñoom ñépp ma leen di ziar bax ci li nu def barki dem xol juma masalik ji xol nan mako indil 3D bi <laughs> bala ma tek element Cheikh Bass wa 3D bi sax mu ngi jall ni ci générique bi ndaysan gis ngeen ko seigne <laughs> touba doy war barke Cheikhul Khadim kenn du seigne touba kenn du mom ndaysan li bu yep d'accord li seigne touba li liko yalla defal and ci euh l'islam serigne touba demone ne ñema ñep na ma ñep xaar ma dem liggéey ko ñew ndax yep ñong dem ndar ak def kutumi def dawmi dugg ci geej gi ndaysan suñu saakani kérok la gal gay daw ba walu tisbar muy japp madam bu sew dik dal fay jaar taxaw fi kanamam dal di koy laal bamba fabaat japp ma dal di am al ba muy massa ma dem ba dil si laal ko ne tuti kon mu tak far bal ko gaay badar yi ñoko lal ndox ma lal ko ci mbex ma demut ci bël cheikh bamba dal di japp julli tisbar gaay badar ya def ma mom li doy quoi kérok la bamba njëkk feñal subah xar bax lu bax du bax ba weesu bax bamba baax suñ am dafa jall bax moo ko doon xibaar duñ ko dural señu saka ne ku yebu gem ku weddi yàlla nañ ci yàlla musal tuubaa li man ala waylullaahi waylun li man an kamarum billaahi mu ne keroog la bàmba romb ak indarloos machine bu rulle ba weesu màndarloos ab dum la capitaine bi loolu nag eh, ñu bëri duñu xam ni mu demee maa ko laaj mel na mag mu ne ma màndarloos mooy machine ñaw yu yu fi amoon bu jëkk daa am machine yu mag yoo xamante ne nii riir mi riir mi buy riir day day foor ba noppi day gaaw motax nak mu ne machine bu rouler ba wessu mandorlos dal ne nak indraloos nak mom ab dund la indraloos dund bu nek ci geej mu ne kérok la dam rom waa indraloos machine bu rouler ba wessu mandorlos ab dund dal ne nag ab dund capitaine Blé moko téru ba wo Angleterre la ki touru yor yor la gaal ga teb bi jom Conakry bisub dibeer non ya ngi nan ngiri ngiri ngiri ngiri ma nga ko ngokin chacha tàkkusaani suuf la gaal ga costé dun bu ñu naan tubaab marin yay compté benn dun bu naan tubaab marin yay compté yi la bëgg wax marin yi mu ne marin ya di compté foofa la ma njëkk a gisee maana ak timileeku korpo yi néewi maana boo déggee ay timileeku korpo aussi naa ko leeral sëñ Musaa Ka benn mag nee na ma maa dem ba fañ dëkk ñooñu ay nit ñu gàtt lan boo leen gisee dañoo doon ay kus kondrong yu gàtt yoo xamante ne nii xamuñu yàlla xamuñu yonent bi duñ sol mbubb duñ sol tubéy bu ñuy wax sax mënunoo wax dañuy mel ni kuy bawante moo tax duñ sol mbubb duñ sol tubéy te tekkiwuñu dara sëñ Moussa Ka daal ne ay jamaala la ak i korpo korpo lañ tudd ak jamaala moo tax sëñ Moussa ne ay timili ko kurpo yi néew maana tekki dara tekkiwul dara ay timili ko kurpo yi néew maana noonu la ko sëñ Moussa Ka waxee saa central nag la la gaal nga taxaw

xam naa euh, balaa waxtaan wee gën a continuer naa leen tegal li nga xam ne discours bi Cheikh Bass def keroog Mbàkke Mbàkke murit yëpp a bigaat ci yow Cheikh Bass keroog wan nga nu sëñ Tuubaa jaayaat nga nu ko jëndaat nañ ko barke sëñ Tuubaa discours boobu nag mboolem ñi demut woon ñépp maa ngi leen koy jox euh, message bi ma leen koy jox ci barke Serigne Touba Cheikhul Khadim euh, kon nañ ma tegal élément Cheikh basirou mbake mom sëñ Cheikh Abdoul Khadir su fekkente ne nii naaw nee nañ ma jappandegul kon kon kon kon sëñ Abdou Diouf dag may tegal sëñ Abdou Lat Say Guèye bu mi ngi fi xasida ak baaraan mu jangon ko fofu ci Mboro bisu Cheikh Abdul eh, Ahad mbake bobu nga xamantene kérok eh, keroog am sam sëñ Abdul Ahad de sëñ cheikhuna mom sëñ Abdou Lat jabut jabutu sëñ Abdou Lat gépp fa kon bu fekkente ne eh, yemb na wala sëñ boole Mbay bu ci yemb rek wala alaaj Cheikh Diop Mbaay murit yi ñu ngi koy demandé suñ Xaadim Kebe mi xew moom tam su fekkente ne mën nañ ma ko tegal nañ ma ko tegal sëñ Xaadim Kebe san jàmbaari sëñ Touba wala sëñ Muudu Galas Mbaay ku lay def moroom xam na ni xel ni yaa ko man lewet gee waral ñuy dendandoo waaye noonu la ndeysaan ma ko yokkool لي جاد بتوحيد ربي الأحد مزداد لي بقول هو الله الأحد لا مدادي وقلامي في الإداء وابدا لست ألاقي من هدى برأني باخي من الامراض وكب من أنكر باهترادي لو سكوري على آياتي أبدا خديما فاس بالآيات أذكر شكر الذين شربوا من عزمي والاجتنان خربوا خشاة لا ترى لخير معجزة بانت لوجن خيري يجاد للجواد بالجهاد وزول لي يكون شنخيادي عياني الباقي بلا إماتة ولا تنازه ولا سماتة آتاني الباقي الكتاب لا سماه ولا أولاك كل من تعسم أني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نباني بالمجتمع مشفي الله تسليما ونفألا فهي داخل عمي إلى ذكور من سخر لي خلق بقاء ربي يا مالكي خليلي والأبيب وغد ما أن يدائي تبيل براني من كل عيب ومرل وغاد لي شعت في كل غرل بريت من عيوب نشيب التجاه إلا الذي أبابا لن ترتجى هو الكريم الأغرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأسن وجنتي ينخاد مني سلام عن سلام لا بآله وأفضل الملائكة رسولنا أحمد كل أغلى عندي خير شنوات الأغلى شند الله أبدار داين لدى من تيل شاني وصف الخلد قلبي سما بكون ربي خلي هبي ولي جعل كفرا ndeysaan sëñ Abdoul Ahad Sey Guèye ne ko ñëpp ñaanal sunu borom dolli ko leer fa mu nekk maa ngi ciy siyaare bu baax a baax sunu yaay soxna maam Diarra Diop di wéy jur ci sëñ Babacar Sarr ak xale yooyu yëpp ñoom soxna Xadilo bu Ndiaye ñoom ñëpp ci barke Serigne Touba manager ak mami sama soxna maa ngi koy siyaar bu baax di ñaanal suñu wayjur sëñ Moustapha Sarr suñu borom gën a dolli ay leeram te eh, gisale ko ak Serigne Touba balaa yàgg dara ci barke Cheikhul Khadim moom sax moom eh, koo xam ne sëñ Ahmad Badawi moom sëñ fàllu moo la taxaw jàng say kaamil sa xot mu kooku xel ya dal na ca ndax it eh, sëñ fàllu wax nañ ne da daan da daan diglu tàggee sëñ Fallou booba benn rajo fi nekk mais sëñ Fallou da daan diglu tàggee bu dégloo rek di déglu di déglu di déglu di déglu déglu bi ma mag ñi jaaxle ci waaw bi ci mag ñi jaaxle na waaw moom dañoo gis ne moom da ngay déglu tàgg rek mu ne waaw ku dugg ci sama nopp rek ñu ne faatu na rek sunu borom dina ko jéggal ndax dégg gi ma ko dégg kookoy sëñ Fallu moo daan dimbilee sëñ Fallu waaw nit da daan am na benn waay boo xam ne nee nañ daa dóor waa koñ ba bépp dof xel mi nekk fi di dóoree rek ñu fexe ba yeewu ko indil ko suñ fan kenn ñemewu ko woon a jege biñ ko yeewagul ay fan mu sonal waa koñ ba ñu teg ci sareet dal di ko yeewu ni ñuy def aw nag indi ko ci suñ fan ne ko Mbàkke kii de yow rek lañ ci yaakaar daf noo jaaxal dóor na waa koñ bu bépp mu ne waaye tekki leen ko as kenn du ko yeewu ñu ne ko Mbàkke buñ ko tekkee da dafa doy waal kii kay mbacke xana nga ñaanal ko ni way puna naa tekki mu ne way ba muy dóore dama gisut way tekki len ko waji ñu tekki ko mu ramba suñ fallu ram ni mouride di def ramba ba agsi dal du koy nuyu su jot toog suñ fàllu ko duggal fi sangu ba set aw ci sa eh, ak sa mbokk yi te bul ti kenn del sollu set di wax wax ju yiw di def liw de nga mu ne ko waaw mbacke ñaanal ma mu ñaanal ko mu jup dem keruk lu gëj a dóor kookoy suñ ku ñu tëj ci kaso mu ne nañ ko génne dugg na ci saxaar train ñu takk benn waay waa ji dañ ko takk ndekete dafa sàcc ci biir saxaar gi ndeysaan sëñ Fallou dal ne waaye kii dum def tekki leen ko waay Fallou du àndandoo ku nuy mbugal Fallou du àndandoo ku nuy mbugal ñu ne ko Mbàkke daa am lu mu jël mu ne waaye lu mu jël ma fay waaye dangeen ngeen koy tekki as kenn du ko yeewu moo tax moo tax moo tax bari na ñoo xam ne nag fu nu gis gor dañ koy jema toroxal amna ño xamni buñu buñu buñu sañon Abdou problem torox wala mor bay <laughs> ñom lool rek moy seen problème ñom waye yalla <laughs> nga yalla bu bindé nga far yalla bind na yow far nga yalla dalay seetaan bindat nga farat mu seetaanaat le bindat nga far bala mo bindat dalay far yow dogu bind suñu borom a tax lu ko neex mooy am et sax nga gis ko fexeel nit ba yàgg ñëw fexe tëj ko dóor ko gañe ko jaay ko alal jaay ko doole ñëw di màtt naan hmm, fekk xamul ne dañ koo jàppale rek yàlla seetaan mais bu bu yàlla yàlla yàlla bu ko neexoon kenn du ko tooñ barke Sëñ Tuubaa gis nga ki dem ci boîte bi pour mooy yàlla yàllaa ko may jàmm rek bu yàlla bu neexoon yàlla du dem fattu rek fattu fattu rek fattu doomu aadama bu fattoo muy dox ba mu yàgg rek kaani dugg ci bëtam nii problème am yépp tuufaay la ak loo doon lijjanti yi di nga ko bàyyi ba dindi loolu ba noppi waaw ki la jox ay bët jox la ay nopp ne la déglu fi ne écouteur écouteur bii rek 1000 francs nga koy jëndi yow yàlla loo ko fay ba mu defal la écouteur yi ngay dégg loo ko fay ba mu jox la micro gémmiñ nga mën a wax normal di ci lekk di ci naan fayo ko Budi yi guna a sayer ci aduna kuñ newon kay ñu pat sa benn beut jox la ay milliards nga lank barke seigne tuba yalla nak jox la yoy yeb bis bu jot nga dajeeg kum ko xagn yow yaangi ngi ko xamni yalla xagn nako yoy yow mu jox lako ne la ko jox fimne ni amul kenn ku dox ba yag ñu naan la kaay facture bi kaay ya ko amul wala facture bi ya ko xol kaay fay li nga xol wala li nga deg kaay xol kaay fay dedet te pourtant de lampe bi rek bala nga ko tal da nga fay facture télévision bi bala nga ko tal da nga fay facture noy doomu adama bu ko doomu adama yoron ñu ko ministère bu ko yor bala nga ci noy ben noy da ngay fay mois bu jot ñun la kay li nga noy waaw yalla mi la jox lolu ba pare amna na la sant jaamuma ma la la wax kay jaamuma ma yow nak nga ne duma ko jaamu na top député bi samay affaire moko ko yor ki naan non ministre bi momu meuna dimbali te billahi koku dañ ko dimbali ab murit mom na sentir seigne touba murit yep nan gëm seigne touba murit yi nan jàjjuwaat nan wat nan sukkat suñu buti oom nan gëmaat seigne touba geneen gëm kenn ku ne war ngay régler sa bop sa diggante ak seigne touba comme ni nga bitik perte na wala gagné na. te ku perte xam nga ku gagné xam nga bu nax suñu bop ndax seigne Sidi mukhtar lim mu bëgg ngi ci ndax seigne Sidi mukhtar li bañ ko sori nan nan nan nan nan non non gëmaat sëñ tubaa waaye nan donat ay murit barke sëñ tubaa don ay murit te bu nu doon sëñ Abdou Lahad dane yem ci dooni murit kese nan jéem a dooni saadix waaw toogaat ba yàgg na ay saadix ngeen waaw mag ñam ko waxoon raw nan ñun gone yi nag ñu bëgg nekk fii ah di topp ku nu mënalu dara nan lànk nan bëgg sëñ tubaa sëñ tubaa moo nu dimbali barke seexul xaddim waaw man ki dimbali ñépp moo ma dimbali muy sëriñ tubaa yàlla nu dimbali yàlla na sëñ Tuubaa dimbali kon bu fekkente ne élément boobu euh, jàppandi na après ñu def ma signe ne ma jàppandi na su fekkente ne nii jàppandiwul ma continuer wax nañ ni euh, am na benn taalibe Seex Ibra Fall boo xamante ne da daan indil Seex Ibra Fall maam Seex Ibra la daan indil euh, dërëm par par at at mu jot dina fexe ba am dërëm boobu dërëm nag daa bari parce que bu fàtte am na taalibe Sëñ Tuubaa boo xam ni bay la boole ak yalwaan di dajale bayeek yalwaan di dajale ba am benn dërëm jóge fii dem doxi ko sëñ tubaa gànnaar fii la doxee ba gànnaar dem jox ko sëñ tubaa waaw mooy sëñ ma seen ndongo moom la sëñ Moussa Kanaan ca mooma at la boole bayeek yalwaan amul lu dul benn bër dërëm ca mbay ma mu xam ne yàllaa ko dogal ca at ma dal di jël dërëm ba yóbbu sëñ tubaa gànnaar nuyu sëriñ tubaa mu dolli koo waar waaye nag lay loola ba muy nuyoog Seex Bàmba Seex Ibra Faal yónnee na fa junni bis ba <laughs> koy jàmbaar xoola kii boole na bay yalwaan lépp mu def ko amul lu dul dërëm moom na bi muy def loolu Cheikh Ibrahima Fall yónnee fa junni suñu Asan Caam nee na maa ko yóbbu gànnaar waaye xoola li Sëñ Tuubaa def dafa jël junni bi di ko xool ba yàgg di xool dërëm bi naan borom dërëm bi yéene woon na junni waaye tey ma defal ko ci dërëm bii lu mel ni junni bii yàlla ni dërëm bu may waaye yéene ma ful ko junni léegi nag kii nag moom ab taalibi Seex Ibra la daal ne Seex Ibra ah man de dërëm bi may indi faal xeet naa ko de ma sas góor dañ koy sas Baay Faal yàgg naa am fit barke Sëñ Tuubaa Baay Faal Baay yàgg naa am fit yàgg naa dugg ci lu naan mënu ko barke Seexul Xadiim daal ne Seex Ibra góor daal dañ koy sas Seex Ibra ne ko ah tey loo am indi ko rek ñu bañ laa sasante mu ne ko faal sas ma góor nañ koy sas Seex Ibra ne ko ah kon kon da ngay indi fukki dërëm bu ne indi fukk waa ji ñëw fukki dërëm mooy problème am lu ne def na ko yenu na liggéey na jaay na ba fexe ba am juróom-ñaari dërëm léegi des na ñetti dërëm te addiya ji mag ñi nag dañ daan xas dañuy xam ne suba suba la addiya ji war a dem bu doon maam Mor mën na fee toog naan damay xaar ba ñetti dërëm yi mat wala sax ma dem naan ko faal de xam nga rek <laughs> dëkk baa a kii waaye ñetti dërëm yi moom gàll ma ko rek ma dem di jiintiwaat fay kook yooyu yooyu laay def di jéem a def ay technique waaw mag ñi xamuñu woon loolu xamuñu woon dóor di xew léegi xamuñu ko woon ñun nag koo waxal sax léegi mu ne da dóor xanaa yooyu nañ ko bàyyi yoon wi du yoonu dóor waaw yoon wi yoonu gëm sëñ Tuubaa la ak jébbulu ak nangu ndigal léegi sax da ngay wax ak nit ay dëgg mu naan xanaa da nga may te fekk boobu la nga koy wax gëm nga ko parce que moom dóor nañ koo dóoru dóoru dóor ba ku mu gis foog na ni day dóor yooyu day am mais ñun <laughs> li may wax gars yi xam nañ ko waaw da ngay da ngay gis koo xamante ne fi ne loo ko wax boo ko doon wax naa ko kaamilu alxuraan a ngi nii sax am ma jox la ko wala xasida ak Sëñ Tuubaa ngi nii jaalibatul maraqib la mu ne daf maa bëgg a dóor fekk booba fu ne rukk nañ ko fa dóor nañ koo dóor dóor dóor ba xam ne amatul fenn foo xamante ne wul fa yooyu nañ ko bàyyi ay danger la yoon wi yoonu dóor yoonu gëm sëñ Tuubaa la yoonu liggéeyal ko yooyu nañ ko bàyyi murit yi ñi koy wax nañ ko bàyyi ngir jëmmi sañ Tuubaa yooyu yooyu nañ ko bàyyee fokkat yi mais ñun dóorunu euh, dañuy gëm sëñ Tuubaa dañ koy liggéeyal waaw wala boo dee dóor sa dóor na doon leen gëm sëñ Tuubaa te muy dëgg te ku la gis xam ne sëñ tubaa jaral na la bakkan tey wa ah, murit bu ne war rek la sa bop ngone xol ba xam waaw man est-ce que bu seigne touba soxla won bakkan ndax dina ko jox sama bos waaw kay ay ca kenn ku ne xol loolu ñu xol ba xam kenn ku ne bu seigne touba soxla won bakkan yow di nga joxe sa bakkan ah amna ño xamantene aw xagn rek boko ko len ko digoon ngir seigne touba ñu bëgg démissioner sen pass pas degeerul seigne touba dañ koy gëm dañ koy wolu dañ koy jox sa lepp mag mi non la def mais mom xolal bim duggé saxar gi né day dem njaarim joxé cheikh Ibra khalis bi waaye dañé mom dina mat mom dañé ñetti dërëm ñetti dërëm yi mom dina ko am xam nga num def bi ga bi saxar gi taxawé ci ben gaar ci la ay ay ay ñu yoron ben frot frot frot bu ñuy téré jaar ci parenteer ba daal di daal di daw waaji waaji mi ngi tudon seigne Mor Penda jeng sëñ Mor Penda la tuddoon sëñ Maxtaar Penda sëñ Maxtaar Penda la tuddoon moom mu ñëw uuf forot bi contrôle bi dañoo dugg si rek gaa yi yoroon forot ba ñoom jaar ca fenêtre ba daw moom mu ñëw uuf forot bi gaa yi di contrôler ba ne ku moom lii mun leen man ñu ne ko yoo xanaa dangaa wérul lii dañ koy tere nga naan maa ko mu ne maa ko moom sama forot la ñu ne ko wàccal ak moom ñu daal di koy wàcce teg ko ci gaar bi gaaru gaar gaar bi foofu ndeysaan mu toog rek chef de gare bi ne nañ ko fi téye comme day jaay fraude ñu koy tere mu naan moo ko moom kii xanaa xamul ci ngoon gi rek xolu xolu yërmandef dugg dugg duggu dugg chef chef chef fraudeur yi daal na ko léegi jël ko nga jaay ko mais bu ko laal si dañ koy tere ah mun ne ko jërëjëf daal di génn nag jaayi marchandise ma dërë ñetti dërëm ñetti dërëm la jaayi marchandise ma am na fukki dërëm di rey rek di ñëw romb njaareem kër seex bi mu ñëwee fekk seex Ibra toog mag ñi wër ko seex Ibra naa diw agsi nga ma ah, ñëw nga mu ne ko waaw faal agsi mu agsi toog ndeysaan mag ñi daan wër seex Ibra ñëpp a ko wër ba seex Ibra moom <laughs> jotaayam daa neexoon mooy xorom si ci yoon wi xorom la see Ibra kenn mënu ko woon a muñ ana ah, ana ana ana ah, ñëw nga mu ne waaw mu daal di génne fukki dërëm yi di ko ko jox seex Ibra ne ko a tegal ci suuf mu teg ci suuf. Cheikh Ibra di xol xaalis ba yag nako ko ah, ana diw mu ma nga fa di jam sante mom rek ndeysaan ci ciirum yu jébbulu yee ya, ju mat jëm di di sante ak mom di sante ak mom ba yag mu daldi di rocc ben bantu khat mom Cheikh Ibra fi mu wëru daldi di ben deureum di xol xaalis bi rek nan ko ana diw ana diw tok ba yag mu daldi di benen tokat ba yag mu pousse benen ñetti deureum yi fete fete juróom-ñaari la Seex Ibra jël def ci jubaam mbooloo mi kenn comprendul waaye waa ji moom xel mi commencé naa liggéey naan génn na la bokkul ci àddee ji ma liggéey xelam da koy commencé di travailler mu toog ba yàgg rek ndeysaan benn waaye daal di ñëw di yalwaan mooy ku yàlla nëbbi bëtam muy silmaxa mu ne waaye yàlla jaa ngi yalwaan Seex Ibra naa ah, woo leen ko mu ñëw bim mu ñëwee ba jub Seex dalne a Ibra daal ne ah yalla ni lay def wayam a ah, da war ne njaa yàlla jaangi yalwaan a ah, yalla sax de du def ni wayam ndax sëñ Bàmba mii waaye yàlla melut nii <laughs> kooko nekkoon jàngalekat bi ah sëñ Bàmba mii waaye yàlla ah de da war ne ah njaa yàlla jaangi yalwaan dal na ah, joko, jël len ñetti dërëm yi jox ko ñu dal di jël ñetti dërëm yi jox waaji mom bim ko xol silma xabi ba xamni mu tambali di sante ba yag muy fecc ndax bu doon jamono ji ab kat manam nga jox ko 150000 ci jamono ji wala 300000 sax mën naa ko parce que bobu dërëm la muy servir bokkut ak dërëm bi fecc ba ba ba dóor pooj Cheikh Ibrahima he mom mo wara sante am borom ñetti dërëm ya daw mo wara sante borom marchandise ma lay wax ka daw ndax bi Cheikh Ibrahima ah ko ka wara sante mo wara sante mom mi nga xamni juroom ñaari maamam yep nga won sawar te bi ñu daggee seen jéng yi di leen indi fii la ma sunu borom xamal ni ñetti dërëmam yi ñëw fii moo tax ñu dagg seen jéng ya ca sawara di leen yóbbu àjjana moo tax addiye murit na ko fonkat xoolal lébu yi li ñu def bërki démb juróom-ñaari million ah ñu takk ko ñëw indil ko Sëñ Tuubaa wane ni kii moo demoon làmbar na moo demoon maayomba yow nga ne murit nga di romb masalik sa dërëm demu ca ay waay te sëñ Sidi Muxtaar ne woon ku ci raw raw ba faw ku ci jitu jitu jiitu ba faw ku ci raw raw ba faw ku ci jiitu jiitu ba faw waaw nan jaayantewaat mbub mi dañ koy sololaat jumaa ji na leer waaw jëw jamono ji yépp jëwriñ alaaji Mbàkke yu xam ngeen ni nekkul Sénégal waaw karo buñ ko wan mu ne bëgg naa bu gën rafet bii sëñ Sidi Muxtaar nee ba tiim Rasulullaay barab ba ca Màkka euh, euh, la la la fa nekk na ne ci jumaa def leen ko biir sax ak biti waaw expert bu mu xool wala ingénieur bu mu xool wala ku mu xool ne moo ko war a defar ñu wan ko keneen ku gën a taaru mu daal di pare ca kooko jël kële yoonu murit yàgg nañoo engagé ay entrepreneur xoolal sëñ Modou Moustapha ak gasuraay bi xoolal sëñ Modou Moustapha ak liggéeyu jumaa ji yoonu murit yàgg nañoo doon ay borom yu jom xoolal Seex Isaa Jenn ak jumaa Njaay xoolal kooku Seex Isaa Jenn nga xam ne sëñ Tuubaa nee na damay romb ci sàkketi njaareem yi lu ma romb mu naan ma Isaa bu ko fàtte ak waa këram bu ëllëgee <laughs> lu ma romb rek mu naan ko bul fàtte Isaa jenn ak waa këram bu ëllëgee Seex Isaa jenn Seex Isaa sëñ Tuubaa daal di ne jumaa njaareem sunu borom nee na na ko Isaa liggéey mag ñëpp kenn ku ne foogoon ne yaa koy liggéey mu ne jumaa ji ak yàlla ñoo bëgg Isaa liggéey ko Seex Isaa daal ne jumaa ci kaw mbaa Isaa ci suuf daal ne ku dox sama digganteeg jumaa ji taxaw danaa la def ciment ak fer ab murit noonu lay def day engagé wu ñooñu ñooy ay idole yow amoo benn bu bulul bu ñu la wanee sëñ Daaru Assane Ndiaye mbaan wan la sëñ Abdou Karim Touré mbaan wan la sëñ Daam Abdourahmane Lo wala ñu wan la sëñ sa sëñ Balla Faali Jeng ñooñu ñooy idole mais nañ bàyyi niveau type bi te toppi ancien type ba boobaay bu baax barke sëñ Tuubaa kon dem ci waxi Seex Basiru moom Sëriñ Abdou Khadir dellu siwaat ci plateau bi xool lañ ca jànge woon ca Masalikul naan murid yëpp daanu gëm Serigne Touba kenn ku ne indiwaatal na murid de Seex Bas jamono ji buy wax da nga naan Sëriñ Abdou mooy wax parce que ci ngay dégg ko yuuxu kee naaw ñu naan téyel kële ñun yooyu lañ soxla suñ Touba jinn lañ ko soxlaa ak da yëg ko barke Sëriñ Touba waaw bu fekkente ne ni alem dinaa leen ko tegal bala maa jóg ci pla plateau bi bu dee boo bàmba ngeen réglé loolu yaag sëñ bi Diouf élément bi moom foog nu teg ko murid yi gëm sëñ Tuubaa barke Cheikh Ahmadou Bamba nan leen dem ci élément bi dellu si alxalifatu al li tariqati al muridiya yàlla na ko fi ñu borom bàyyi lu yàgg loo tam ànd ko wér ci ndigalam lañ ñëw fii teew fi ci jataay bi ndax lu ëpp weer tuuti weer ak genn wàll euh, sëriñ man Mansour juuf moo demoon ci sëriñ bi yëgal ko daje bii fekk ci yooyu jamono ma nekk ci waaju màggalu poroxaan ak war a dem Mauritanie ci ngan nga ma fay def at mu jot mu bàyyi ko ci sëriñ bi sëriñ bi yabalaat ko ci man jox ma ci digal wax ne naa leen tànnal bis ca ba may tànn nag ma tànn bis bii tey di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars boo fekk ne xew-xew yi ci jamono toll amagutoon yàlla dogal ma dem ba dellusiwaat bi ma agsee jóge Mauritanie lu toll ci ay bis ci màggalu Mbàkke Kajoor gi ma yóbbante ci Serigne Mansour xamal ko ne ko kat bu fekkonte ne bis ba maris na ko fomm bu fekkente ne ci sartul ma fekke ko la ndax bis bi dana xat ci génn Tuubaa mu ñëw fa ànd ak délégation yu mag mooy kilifa yi bàyyi ko Ngor yi bàyyi ko Wakaam ni mu ko lima léegi ak yi bàyyi ko Yoof yëpp ànd ak ñoom ñoom ma wax leen ko wax ja diis ci man lool ndax date bi maa ko tànnoon waaye ñoom itam yéegle nañ ko ba fomm gi jafe waaye nag li suñu borom di dogal rek bañ mujj juboo ci ne bu subaa ci dibéer ja ma def déclaration ba xamal nit ñi ne ngànt ci man la bàyyi ko fu Mbàkke xalifa Serigne Souhaïbou tàbbi na ci biir buñ ko tuddee itam Serigne Fallou Mbàkkeem Serigne Souhaïbou mi nga xam ne mooy Serigne Serigne Mansour Diouf tàbbi na ci biir sëriñ Ahmadou Mbàkkeem Cheikh Mouhamadou Mourtada moom itam mi ngi ndax moom itam ñun ñëpp ñoo bokk luñ doon ci sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Fadil mu Cheikh Mouhamadou mustapha Bassir moom itam maa ngi moom ñoo ànd ak njabootu Cheikh Sidi Moukhtar gi ma fekk di sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ne maa ko waxoon mu sànni ci kàddu ndax moom itam positif ma xam ci moom ak ak taalibeem moo tax mu wax loo ko ak sëriñ Abdou Latif rakam mi mu àndal ak mboolem ñi fi teew ci Cheikh Sëriñ Touba yi te mooy tuddee Abdou Khadir Gueye tudd ci maam bay ñam mu sëy sëy suñ Modou Faye Jama ñang mu yóbbaale ñëpp di yi ñëpp di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo fi teewal njiital réew mi président de la république Macky Sall te ki wax ci seen kàddu léegi Seydou Gueye di ko yóbbante nuyoo ak cant ak ngërëm jëm ci moom ak mboolem délégation bi mu àndal bépp di leen sant bu baax ci seen teewaay di beral itam ak cant Serigne Mansour Diouf ndax lii mu wax léegi mu ni su ko weesu jël na léppam jox ko Serigne Touba Serigne Touba laa doon liggéeyal nag ba samay bokk raw ma samay naaw la raw ma nopp mosu ko dégg bët mosu jot kon la sant leen bu baax te xam ne Serigne Touba lépp lu ko waay defal rek sa bopp rek ko defal ndax suñu borom noppi ci léppam lépp loo xam ne bëgg na ko rek suñu borom dogal na ko ci moom ba noppi kon lépp lu nu def rek gàttandu ñaanu Serigne Touba. kon ñu ngi sant suñu bokki lébu yi nga xam ne lii ñu def bokk na ci lii gën a dëgëral benn Sénégal bokk na ci lii gën a dëgëral benn lislaam kon ñoom itam ñu ngi leen di ci turu Cheikh Sidi Moukhtar mi nga xam ne jëf ji jëfuma ñu ngi leen sant bu baax a baax gën jaa rafet cant amaata doy loo yaa Euh, jërëjëfati sëriñ siiru Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir euh, di ñaan sunu borom euh, yàggal ko suñu kanam lool te dolli ko lool nee naa ko àdduna bépp bu ñu sañoon am ku mel ni yow boo demoon màkk sax bu sañoon am Cheikh Bass moom sëriñ Abdoul Khadir kon loolu fierté murid yi la kon noo ñaan suñu borom dolli ko lool lool. di siyaaraat baax Cheikh Mansour Diouf ci taxawaay bi ñoom sëñ Pape Mayel keroog boole ñëpp teew. wane ni daal Serigne Touba ben ben ben marque la bo xamantene xam nga ni El Hadj Abdou Aziz bu ma daan na wax ne euh, Serigne Touba euh, ne la yàlla bari le ba mu des Serigne Touba Serigne Touba ben la ci am. xamna euh, serigne Abdou Diouf magalu serigne Ablaye tiawlay gimu mu doon waxe waxam ju am solo ja soo ma ko mënee tegal gir jëmmi serigne Touba xolal mako ma ma ko emission bi nga xamni moy dernier element sëñ Abdou Diouf euh, loolu euh, sëñ Abdou Khadir demal nga xool mu mu mu mu mu préparé ma ko muy euh, sëñ Abdoulaye Thiaw Laye màggal cent 1981 wala 80 keroog discours ba mu def nga xamante ne tey loolu la sëñ Ibou Sini Laye daal di confirmé waat loolu yi la sëñ Jaraaf confirmé waat loolu la Cheikh Mansour xam nga ni mënutoon a ñàkk élément ab tubaabu Touba mel noonu ñu tegaat ko foofu ca Yoff ndax bul fàtt ni këram rek ngay dugg ne maam jaara am ko wuyu ne la wala nga ne Seex Mbàkke am ku wuyu ne la wala nga ne sëñ Abdul Ahad am ku wuyu nelalaay kon yaakaar naa ni loolu mooy loolu loolu loolu lañ dellu si muy lislaam waaye waaye daal eh, war maay Tuubaa daal bëgg naa mu murit yëpp ñu waxtaanaat te kenn ku ne xam ni eh, bariwaa na sax ndeysaan fi mu ne Tuubaa Tuubaa sëñ Sidi Muxtaar boo gisee mu waxee noonu eh, gis nga doomu aadama moo moo moo moo moo baaxoo lu ko yomb mu foye ko mais seigne touba seigne ablaat neena xamone ko xamone aw turum sax danoo jombon xamone ko xam turu seigne touba koko xamone ko sax jomb nanu yàlla dinu dimbali dinu dimbali xamni yonent musta wacc ci ñun nit ko ñuul yonent musta wacc ci ñun ben yonent 124000 prophète yi amul ko ci sant njaay amul ko sant jóob amul ben yonent bu sant mbaay amul yonent bu sant djagne amul bu sant ñang amul sant Sénégal yi laa wax yonent bu ci sant nenn amul yàlla xam ni bu yow mal xayaamee nit ku ñuul dafa bëri pexe mën naa taxaw naan yàlla yow kat yaa ñu yebalul woon diw ak diw ak diw mu ne kon xaaral ma jël ci koo xamante ne sama jalaal ak sama jamaal laay boole sax def ko daaru duniyaa toppatoo seen xeet yooyu yut la yut yut ko rasul lay àjjana muy Cheikh Ahmad Bamba nu am ko mu feeñi fii Mbàkke Bawol ah 1840 ndeysaan nañ dem moo di ci juróom fukki at yu manqué ñaari at ñëw naa fi kon ñeen fukki at ak juróom-ñett fii ci Touba wu ma ko gën a màggal ñaari màggal yi ma ko manqué benn bi moo di dama amee tawatu tànk bi ci ñaar bi ko ñaareel moo di dama jóg ba jëm si fii xalifa bi may def yi guddi màggalam ëllëg nelaw ci guddi gi mënatuma agsi yooyu ñaar laa manque fii ci Touba ci sama diir diirab juróom fukki at kon xam naa fi dara ci li ma fi war a xam nu ngi am mbégte nag ci dëkk bu tedd bi nga xam ne xaadimul Moustapha yàlla dafa dogale léppam ak léppi dëkk bi ak léppi jullit ci moom ba mu bind ne faranil baaxi bila aw jaalin wala masaxatin wala ahjaalin ne man xaadim yàlla bégal na ma ci lu dul mu wëndaalu ji wala ma am coono wala ma am gàcce ba lii ma yàlla jox nga xam ni lépp ci sama loxo la ko teg képp ku mu neexul day di nga am ko béral ku dul ku dul man loolu la bind ne adama sul xudrati wal iraada bina adowin lam yenal muraada ne mabba na boroom doole ji di yàlla kay boroom na meel sama tabaxi noonu lam yanal du ñu am mukk muraad lañu bëgg ci man nun danoo bokk ci ñi nga xam ne li ko yàlla defal nangu nanu ko bu baax a baax a baax amuñu ci benn sikki sàkk li ci gën a am solo nag yaa man la day kenn niyati waxali wa amali sakkaytu doona jawli dafa waxoon ni man lastu ajoolu liltimaasi maarifa naakiratan kuntu wa sirtu maarifa dafa wax ni man duma kuy wëndaalu wala ñu dima publicité wala muy bind lettre fenn waaye fii ngeen doon xëy sama mbir fi laay toog ba mel fi ne jant ba ñëpp xam ne maay xaadim rasool loolu defe naa ni wér na mu ne bu boobaa nag wala yaxutta fawqa suhri wal muna wa fuqta xaala arafatin wa minaa mu ne bu boobaa nag danaa fexe ba yàlla mi nga xam ni lu ma mébatoon ak lu ma bëggoon jox na ma ko baraw la ma mébatoon ak lu ma bëggoon ba yéen kawe ngeen ñañ arafa ak minan loolu doy na ci yóbbal bu ñu nu yóbbal la ca des nag di li fi nekk muy kéemaan di coow di wax muy lu mu doon loolu ni ko xaadimu rasul bindee dafa nekk lu doy kéemaan yajuudu li yajuudu li jawaada maa laa yen fadu wa kullu si siwaay yen fa nee na ku tabe ki tabeel na ma ba jox ma lu jeex ku dul mën nag di nga jeex la waaye man xaadim sama dara du jeex xanaa suñ ko waxee mu yi danañ ko dégg ndax fu fi waay nekk bu doon benn butéel nga fa teg danañ la fa song bu doon benn bant danañ la fa song boo fa doon kenn di nga doon dem ba dem fa mbooloo mu doy sëkk sunu borom bi nga xam ne mooy joxekat bi moo ko jox loolu jarul la am benn sikki sàkk ne eh, xaadimu rasul li ko yàlla may moom dong la ko may mu yore ko fa tabaarakallaahu la ca des moo di xaadim kii nga xam ni moo fi nekk ndax kat bu leen di fàtte ni ku fi toog da ngeen di bàyyiw turam ne Serigne Touba kon nag ngeen xam ni degere ba nga xam ni sunu borom moo ko ñëboon jox ko rasulillahi mu tekk ci loxoom kon ku ko fi nekkal degere boobu dafa la koy jox ngir kii fi nekk tey di suñu kilifa Abdou Lahad la tuddoon moo siiwoon waaye fii mu toll Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad lañ koy wax loolu nag moo lay xamal ni kon la newoon ca ku mag moo nekk ci moom mu def fi nag mbir moo xam ni li nu fekkee li mu fi def moom si Abdou lu am solo la ngir sëriñ Touba li mu jëkkoon ittewoo fii ba bind ka ne abli idaamata ma tuibu wa tartadi fi maskani tubaalati la ka tanzalu dafa waxoon yàlla nanga nga ma may ma loo la nga xam ne soppa nga ko te gërëm ko ci ci sama dëkk barke sëñ Tuubaa jërëjëf euh, euh, na nga fi yàgg te wér ci barkeb euh, Serigne Touba barkeb Seydina Limaamu gis nga ko noonu dégg nga li mu wax sëñ Abdoulaat moo fi ne boobu jamono sëñ Abdoulaat la mu ne fii fi mu ne nii tur turam sa soppi ko na ndax xaadim rasul lay tudd sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad sëñ Modou Safa sëriñ Touba Cheikh Moustapha al Karim nga daan dégg sëñ Fallou sëriñ Touba Cheikh Mat Fadal nga daan dégg sëñ Abdoul Ahad sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad nga daan dégg sëñ Abdoul khadir sëñ Touba Cheikh Abdoul khadir nga daan dégg sëriñ Saliou sëriñ Touba Cheikh Salihu nga daan dégg Cheikh Ahmad Lamine dégg sëriñ Touba Cheikh mohammed amin nga dégg kii fi ne sëriñ Touba Cheikh Sidi Moukhtar ku fi nekkat rek yor doole ja te doole yooyu yëpp fi mu ne daje na fi mu ne ci Seex Sidi Muxtaar moo tax lu mu wax nan ko def nee na Touba bëggatu faa dégg luy nuru politique ak lu ko wër nun waa tuubaa lay waxal nan leen warmaal dëkk ba te sant Serigne Touba. maa ziar bu baax baax mbollem euh, ñi sante geey euh, sëñ Basirou Samb noo koy ziar soxna am soxna Awa geey euh, mako malen di jaaleel bu baax baax ki nga xamantene moy mooy sëñ Ibrahima Guèye di di di magu magam di magu soxna Awa geey mang koy ziar nekkoon fi ci zone B laq samedi jam jàmm ndeysaan noo ñaan Serigne Touba teru ko lol te teral ko mang koy jaale walel nak sëñ Ousmane Mboup ak mbollem technicien yi nga xamantene ñi ci télévision bi ndax Euh, daa mel ni goroom moo làqu kon noo ngi ko koy jaale sax suñu yaay Adja May mun a fay noo ko koy jaale baax a baax ak mbooleem ñi nga xamante ne nii euh, famille Ngéyeen bàyyiwuma kenn ndeysaan di woon ku baax euh, ku ku ku amoon sutura kon noo ngi ñaan mu gisee sëñ tubaa balaa yàgg dara ci barke Seexul Xadim ñuy baax a baax Adja. Euh, soxna euh, Ndeye Khady fey ñoo ngi koy ziar baax meer Ndeye Khady day nekk foofu ci Touba ñaari tali di bëggee émission bi day saa nga xam ne léegi ma génn daf may woo jooy ma xam ni kii moom euh, produit Serigne Touba la kon noo ngi ñaan suñu borom dolli ko bu baax a baax te yokk aw wéram ci barke Serigne Touba may ziar baax ñoom soxna Ndeye Oumy Mboup waa Touba Thiaroye bàyyi ma kenn ak soxna Ndey Seen ñu fa nekk soppe Touba TV nag euh, fan yi war ngeen a daje ñu ñëw ñu santaat sëñ Touba ci télévision bi euh, waaw ba murit ci xam ni sëñ Bamba rek mooy jenn waay loolu ñoo leen di siyaar baax soxna Biti Diop ñoo ngi koy siyaar bu wér a wér ak it ku bëgg a samp cellule soppe Touba TV ubbil nañ la ko te xam naa carte de membre yi mu ngi soxna biti fan yi sax jeexoon na ndax euh, cellule yi daanaka euh, am na ñeneen ñuy demande waaye ñi ngi koy defaraat bu nu amaatee ay carte ñoom sëñ Magay saar waa Touba euh, Jacques Mbaaw ñoo ngi leen di ziar waa waa waa waaw waaw waaw daayira maam jaare géejaway sama yaay keroog ndeysaan fii ci Masalik bërki démb rek ñoom ñëpp mobilisé waat ñëw Euh, waa euh, ndeysaan baay Baye Baye ngoom dëbës ak sama yaay ya fa nekk ah, ñoom soxna maam jaar ci daayira sëñ euh, mafatixul bisri Touba Guédiawaye soppe Touba TV yooyu maa ngi leen di bu baax a baax di ziar waa ASECNA Touba ASECNA Jacques Mbaw ñoom soxna Sophie Sophie Sophie Ndiaye ak ñoom soxna Siga Thiam jàmbaar yooyu yor ko maa ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar bu wér wér waa yaraax ñëpp soppe Touba TV yooyu ak waa Euh, aéroport aéroport war nañoo am soppe Touba TV foofu ndax Touba aéroport euh, murit ya fa nekk ñoom ñoo ñëpp maa ngi leen di ziar baax a baax te di leen ñaanal waa Yoof ñoo ngi leen di ziar ñoom soxna Asu Fay Cambérène ndeysaan ñoom it ñoo ngi leen di ziar baax euh, soppee Touba TV ya ne foofu ak ñoom Sofi Taal bàyyiwu ma kenn soxna Anta Saw ñoo ngi koy ziar waaye soxna joor caam ñoo ngi koy ziar tiisam wit moom it dal ci kawam bërki démb rakkam daal di wàcc liggéey kon noo ngi ñaan moom it ñu koy jaale waale soppe yépp ndeysaan ci barke Seexul Xaddim soxna Faama Njaay ah euh, nekk fii ci primature bokk ci soppe Touba TV di ci jàmbaar moom it ñoo ngi koy ziar soxna Xadi Noxo waa Touba Kastoor soppe TV ya fa nekk maa ngi leen di ziar baax a baax waa yëmbal euh, soppe Touba gën nag say caam ñoom soxna Kumba Ngom euh, jàmbaar yi eh, may ma ma ziar soppe Touba ma ma ma leen dama leen a gëj a ziar may ma deux deux de secondes rek ma ziar mboolem soppee Touba TV yëpp rek ak ñi bëgg a samp ay cellule euh, ndeysaan euh, euh, soppee nag ma koy tudd ki ma ciy jiital mooy alaaji Mbàkke yi ndax keroog ba ngeen ko fekkee Masalik dana leen nangeen xam ni bind leen ma ci kaw man maay soppe bu njëkk bi ndax xam naa ni sopp leen télé ki fiil sopp leen ay caméra kese déedéet yéen tur wi ngeen sopp muy Touba kon ku ci bokk rek sëñ Touba nga sopp ci barke Cheikhul Khadim seen émission Café altine lay tàmbali ba alxemes altine ba alxemes maam Mor Mbaye di leen ko defal bu 18h jotee lu ci juum man la maa doon wax te bëggoon mu baax lu ci dëng man la maa doon wax te bëggoon mu jub lu ci jub sëriñ bi lu ci baax sëriñ Tuubaa yàlla na nu may dégg ak topp ndax it yàllaa ma nattu may wax waaye ñi may waxal ñoo mëpp xam-xam kon seen xam-xam boobu rek laa bëgg ngeen jël ko teg ko ci sama wax yu yi rek boo leen xoolee ci seen xam bi rek yaa gaaw nooy walloo yow rek a biguloo rabbi samaay yaa ma ta doyloo